mbokk internet yi ñuy euh, suivre ci Evidence TV gannaaw ba ma leen nuyoo ziyaare leen bu baax a baax macha allah di leen wax rek euh, yéen a ngi wàcc ci seen émission bi nga xamante ni moom moo di au zénith waaw maa ngi bëggee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, suñu téléspectateurs yi ñu seetaan waaye tamit di nuy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci opito yi yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat seen biir kër may nuyu tam ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete gannaaw suñu boroom def ci ñoo xeewal ba ku ci nekk ci tamit delluwaat ci sa njaboot waaye tamit di bëggee ñi nga xamante ni ñoo nekk ci tali bi macha allah suñu chauffeur yi di leen béggee bu baax a baax a baax ñuy dem ci jàmm waaye tamit ñëwaat ci jàmm di nuyu suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ku ci nekk rek eh, jox nañ la loxo nuyu la nuyu bi nga xamante ni moom moo gën ci nuyoo yi di asalaamualeykum wa rahmatullah noonu laay eh, nuyoo rek eh, ki nga xam ne mooy sama naataango mooy mm-hmm. mun di ko ziar bu baax a baax mais tam tey nag moom dañ fi am invité bu am solo bu am maanaa mm-hmm. ah, di bébé moom tam ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax macha allah léegi léegi rek seen émission au zénith nañ ko daan defee fan ko daan defee sur Evidence TV Mounass maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Penda. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax a mm. baax. xeeboo li nga def. non non xeebu ma noonu. Ah, kon baax na dama ko simple rek. <laughs> Eh, kontaan ci sa simple. Eh, mhm. di la fay di nuyu suñu invité bébé laay di ko dalal jàmm fii ci Evidence TV di nuyu téléspectateurs yi toog ci seen kenam écran di ñu seetaan à chaque fois donc di leen dalal ci seen émission au macha allah taan ci moom bu baax a baax Mounass ma di ko béggee bu baax waaw noonu tam laay nuyoo bébé laay. Penda maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax a baax. ah masa coono nag bàyyi yoon bi ta metti. waaw billaay non jar na ko jar na ko. ah kon sant yow yow yow sunu jigéen nga. a miy toog maa ngi koy nuyu. macha allah di mm-hmm. di béggee ñëpp. di mm-hmm. nuyu maam mi ma àndal. Mm-hmm. di nuyu sama yaay di nuyu sama ak sama soxna. macha allah waaw maa ngi leen di bëgg ñoom ñëpp déggal loolu kontaan ci déggal ak sama soxna maa bëgg ci loolu waaye surtout loolu <laughs> ah waaw baax na baax na daal man xale yi jaaxal nañu dégg nga mu ngi noonu donc xam naa dañuy tàmbali rek li nga xam ne moom moo di émission bi ma bàyyi sama naataango mooy mun a mu mu mu posé koy question rek ñi de ma xam kan mooy bébé mhm. ah tey moom lépp daf ñu koy wax fii mooy yoon <laughs> suñu laay la tudd euh, jógee fale ca Pikine donc euh, di yëngoo ci wàllum euh, mbalax. Euh, mhm. donc fi ñuy commencer rek mooy xam kan mooy Bébé may mën a loolu moom naa sawar. Mhm. Bébé benn ndaw la bu juddoo banlieue yaroo fa màggee fa. Mhm. papaam doon way yaayam doon fecc ba pare ma judd si kër goo xam ni aar la. yàgg bëgg tamit samay idole ay Ndiaga mbay ay ñoom Youssou Ndour. macha allah gën a yokk tax ma bëgg ay way. tarbiyu ko. déglu si di ànd ak ay mag yoo xam ne tey jii lu ne lu ne lu ne lu ne daj naa ko ndax ndax bëgg way dëgg la sama cicatrice yi ngay gis rep way moo tax ñu xaaj ma ndeysaan barki Seexul Xaadim rawal ndax damaa nekk foo xam ne ay mag rek a fa nekk ma nekk fa xale looloo gën a indi sax bébélaay dëgg la ak sama sama waajur boo xam ne dan ma kaa dan ma kaa mayoon mhm. yàlla na ko yàlla yërëm xaari ko àjjana muy sama yaay mbure moom tuddee bébélaay bu gaa yi di wax bébélaay daal pour pour ñëpp la mhm. kër ga ma juddoo mooy kër aar bool ba fa wadd def contretemps da lay génn sànni gi la koo koy bébé laay mbalax maan bu baax bébé euh, bi da ci ay parents mhm. lu tax bébé laay euh, jàngul comme moromam yëpp mhm. waaw loolu moom yaakaar naa ne lu gaay naan bul binde law belaa mhm. looloo ma daal <laughs> bul yàq sa prix <laughs> ah bu bindee yàq dama dama man daanaka dama xàmmee rek <laughs> nekk ci aar daara daal def naa ko mais dama xàmmee rek nekk si aar. macha allah ñun ñëpp sunu famille ñëpp ay artistes lan. samay rak ay artistes lan. Mhm. muy waa Ballago Boys booy di feccal waale. Mhm. sama mag Samba tamit artiste la. suñu kër daal mooy kër aar moo tax mhm. xam naa loolu tax daal jànguñu du ma ne wax man kees dama leen sànni xeer ñun ñëpp. jàng leen xeer waaw ah, kay déet waay. <laughs> noonu la. Uh-huh. Euh, Penda. Uh-huh. Euh, dañuy ñëw ci parcours bi nga xamante ne mooy uh-huh. Bébé fan la commencé ak ba egg si fii. tey dëgg la dëgg la. waaw Bébé Laye fecc la commencé. nekk xale bu ndaw ba may fecc daanaka dix ans la am ay onze waaw tuur bu ma gis. dama wax sama sama waa groupe. ñu sangu taf taf sol suñu a dem fecc ci mhm. dañ doon wëru dañ doon wëru tuur ba tëngéej wala ba asalem te lépp dañuy dox mhm. noonu lañ doxee ba dajeek Papa Ndiaye Thiou macha allah mu jël ñu ñu bokk groupe fecc ay xil yu bari mhm. Assane Ndiaye Thiou di jaami boroom mati cam dogo na séri na bil gi may gaañ a gaañ loolu metti na loolu loolu ni ñoo ko ah, fecc ak xuri daan na baax ah, na doom da dib gone loolu maa ko fecc ak ay clip yu bari Moussa Ngom dem si yàlla si naaroo jàmbe jiire yooyu yëpp ñoo ko fecc ban demee ba 2008 nag ma xam ne tey ji samay rakk ñu ngi si aar bi te fecc lañuy def mhm. samay mag tam fecc lañuy def mhm. te yàlla may na ma don boo xam ne mhm. maa ngi koy sentir ma bàyyi leen fecc bi nag dem si way parcours bi fa la jaar di way di aw ku ne géejawaay banlieue daanaka aw naa ñëpp jàngal naa nit wayu pare sax ñëw aw la sa jàkkaarloo macha allah boo koy bébé laay parcours. waaw man li ma ci jaaxal ci mbir mi rek <laughs> man jàkkaarloo ma ak bébé laay gannaaw laa jàkkaarloo lu waral loolu. <laughs> Eh, bàyyi jàmm euh, lu ma ci mën artiste parce que gis nañu artiste yu bari dañuy bàyyi seen tur. Uh-huh. Euh, dem euh, créer beneen tur boo xamante ne moom lañ koy woowee ci biir soow. maa ngi la koy wax léegi léegi nee naa la dan maa mayoon ba ma nekkee xale. sama magu yaay mu ma tuddee bébé mm-hmm. ak ba pare ña ma doon àndal ñëpp a ma mag. ndeysaan bébé rek lan ma mënoon woowee. gis nga loolu tax bébélaay bi jóg ba pare samay way man bu ma si way awukat yi bébélaay la ñuy wax bébélaay boo xam pour nga bëgg mu dañ day jafe dëgg la bu ma bëggee mu dañ il faut ñu caravane ma jël ay oto yu bari def si ay scène musique jox gars yi micro ñuy war naan bébélaay tuddatul bébélaay gannaaw laay la tudd ndax xam naa li ma li ma li ma nar a dal mooy. Uh-huh. mooy dem ba doon paa ñu naan kër paa bébé laay gi nii comme na ko doon waxee kër paa booy bambara. est ah. looloo ma nar a dal. ndax ragal naa ni tamit bébé bi uh-huh. moom bébé bay continuer moom ngay dégg mais bébé laay est tamit yow ci musique mbalax rek nga yem wala da def yeneen yu dul mbalax. Uh-huh. non musique mbalax daanaka mooy sama base mais yem ma si. ndax sama single bi ma mujjee génne rek afro la. waaw ndax dama kaa dem mais tamit pour musique il faut que nga tarbiyu ko xam fi ngay teg ak fi ngay dem mhm. ma dem Duda Seck jàng ko macha allah mais essence mbalax la mbalax maan la ma ñëpp di wooye mais bu may def samay single mhm. am naa droit def afro mhm. def yeneen morceau nigérien yëpp dama koy def. mais mais Penda ñoom artistes yi. Mhm. Mhm. Euh, ku ci woy rek mbëggeel lay woy. parce que mhm. am na yeneen woy yoo xamante ne laalewul dara ak mbëggeel. ak mais génération léegi bi mbëggeel mbëggeel rek lañ woy est-ce que euh, waroo leen changer euh, kii yooyu. <laughs> ngeen dugg ci ci ci woyu démb yi en fait. man moom man boo déggee ma la expliqué bébé laay bee tax gars yi tegeen tey man démb laa. démb laa de. <laughs> man 2002 laa dugg si aar xam nga ni démb laa ku dem naan la Ndiaga Mbaye mooy sama idole booy léegi ñuy woy yëpp boo waxee da Wally Seck mooy sama idole wala Sidi Diop uh-huh. man Ndiaga Mbaye laa wax ay Youssou Ndour musique mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. boo demee say ñoo xam ne dañ lay woo doon ay ay mag nga ni leen démb xam nga aar bi dafa rax boo xoolee euh, ni mag ñi daan woyee ak ñi xale yi daan woyee du benn parce que da ngay dégg ay woyu xale sax mais dafay xaw am ay kàddu yoo xam ne dafa xaw a guerre ak yooyu noonu mm-hmm. euh, yow nan nga ko gisee waaw nu ma ko gisee mooy ñoom daanaka ñoom tendance la ñuy topp mm-hmm. dugg ci tiktok bi ndax tey jii da ngay woy lu am maanaa mm-hmm. kenn du kenn du ko déglu nga woy loo xam day yeete kenn du ko déglu affaire tamit yéen tamit si ngeen bokk de Sénégal da ngay woy loo xam day yeete du la déglu nga way loo xam ne tey dangay ngay wax mm-hmm. loo xam ne da nga naan kon li ma way ni noonu laa bëgge mu irima ñu ne la moo tax kii di wax irima te xale jigéen ñi moom daanaka loolu leen di bëgg mais boo bëggee tamit say way tamit yàgg fi comme way Youssou Ndour ak way ñeneen ak ñeneen mm, ba léegi bu ñu tegee way nongo la dañu tegee ni tay la tay génn man yàlla dimbal na ma si loolu macha allah te way moom si yeetewul mm. euh, xaw ma diglewul ay naxay la comme ni ñu koy waxee est ce que mën nga mën nga ñu indil tuuti ci morceau démb ndax am na tamit feneen fu ma bëgg nga ñëw fa ak ñun waaw fa nga daan ànd ak paaba daal di toog di yore say gutt bëgg naa faa ñëw mais ñi ñëw tuuti rek ci wayu démb tuuti rek loo xamante ni mën nga ñu ko nuyoo waaw waaw moom moom bu dem bi moom. dëkk ba ma jëm daal. saxaar ga. tekki na nanu dem dénkaane muñal lu la dal yàlla buur bi day la dal yàlla dana natt jaam. góor muñ la ko dal yàlla wan koy yoon ba du jooy. Seydi Baram Caam Seydi Baram Caam Seydi Baram Caam baraamu Maymuna ngi cebu Demba naawo awooloona asu jaxaane ndey asumi yaayu bas caam di caam moo di baay ma lay maas faatu sangare faatu sangare wal ma asutu caam ma ma caawaram caam ndey asu juufa ñoo baay moo yaayu Suleymaan di yaayu Moustapha waaye nag baram caam wàcc nga def nga lii la war bay woo njaboot gi wit wàcc nga te def nga lii la war yàlla lu mu def noonu la te jaam bu ko xam noppalu na leen muñ te ji de waay loolu démb la njagam bàyyee ko woyoon dëkk ba ma jëm daa sori saxaar ga fa jëm dekki na nanu dem dénkaane mhm, mhm. moom damaa yàgg déglu ay woyam ndeysaan ci fin bi yaa ngi naan yàlla nu mu def noonu la. waaw te jaam bu ko xam noppalu ndeysaan mu ñu la dal yàlla buur bi day natt jaamam waaw dëgg la mu ne gor su muñ la ko dal yàlla woon la yoon ba doo jooy amul sax wax ndeysaan dëgg la macha allah mu nekk lu am solo ah may mun am na solo bu baax parce boo xoolee wayu démb yi mhm. euh, bu nit ñi di ko dégluwaat day mooy way yu yeetee la dëgg la way yeete par rapport ak euh, instant bi jeunesse bi way yu ñuy way ak loolu mhm. euh, te nag noo ko kiiwee loo si xamul waaw wayu démb mhm. moom la booy di jëlaat defaat ko tey de. dëgg la ñu bëri na dañuy mm-hmm. ndax am na nouvelle génération boo xam ni. Mm-hmm. fekk wuñ démb. waaw te boo woy njagambay bu ma ko jëloon dëpp ko. waaw ndax am na woy njagambay yoo xam ne sax dama kaa dëpp. macha allah léegi gars yi dañuy mm-hmm. la tay la ndeysaan tay la la woo siiri booy man déggi walla wa ko sa yaay mu xam ne noobal la yaama ne woon takk maa indi ma dema sagal si samay nawle xam nga tey démb lañ jël def ko tey ah, léegi bëy bëri na lañ def mais bébé boo uh-huh. xoolee uh-huh. jeunesse bi déglootuñu genre woy yu mel ni ñoom la uh-huh. Waly Seck woy ñu déglu ko moo gën euh, Ndiaga Mbaye mu woy ñu déglu ko ci instant bi parce que mm-hmm. Mm-hmm. boo déggee nit ñi di déglu ay Ndiaga ay Kiné Lam day fekk mag ñee toog mm-hmm. ñuy ñu ko ñu koy déglu mais jeunesse bi xam nga déglootuñ loolu foo romb ci marché yi son waali seeg ngay dégg son papa son mbëggeel yu waali dina indi euh, son papa mu wayaat ko te macha allah ku ci nekk xam na ni papa coon moom lépp lu mu way rek téere mais xëy na mbëggeel yi ñuy way moo bëri ah man damay damaa jàpp ni ñooñ nouvelle génération mooy boo yoo xam ne dañuy soog a jóg di way mhm. tey jii gëstuwunu ndax boo gëstoo di am sa yëfu bopp mhm. man producteur bi ma waxoon léegi léegi damaa bëgg six morceaux ma defal la six morceaux yoo xam ne dooyu kenn mhm. te binduma defuma dara damay dugg tak tak si way singal ba mu mot génn dem te sama xel laa koy jàpp mais léegi booy dañuy xaar Waly Seck way benn affaire ñu dem seen jàkkaarloo jéem ko jéem ko see way ñu xaar Pape Diouf génn singal ñu jàng ko bu mun ko da leen koy jaral de da leen jaral ñu dem ba géej wut écouteur yu mag taksi rëy yi takk ko toog si tefesu géej gi déglu pour mun ko man damay way jàkkaarloo sax sama staff wala sama ministère ñu naan ma woyal woyal moo sa diw mhm. mais samay morceau bopp laay yóbbu moom laay répété di ko woy ba mu jeex damay dem ba miinal ko nit mhm. samay singal yi ma génne tamit noonu la mais xaaj bi ngay gis yëpp amuñu amuñu benn way mhm. koo si waxoon du du question dara de barki Seexul Xadim dem nañ ba studio mhm. di ma woo téléphone manqué loo xam ne pour ma jox leen ko wala ñu dem studio woo ma ñëw toog mhm. ñu naa ma déglul mhm. déglul ñu ba xam baax na lan moo manqué fii ba ci ay jàngkat ak yëpp dañuy wooy benn affaire mu manqué ma ñëw defar leen ko dangaa jàng ci mag ñi waaw ndax man démb laa mais instant naa doon bébé rek lu bëree bëree bëri mais may mun a dañu dañu gis ni que bébé laay bu mu gënee nekk tout ndaxte nee naa la yow dama laa topp. dama maa topp yàgg na ah, dama laa <laughs> dama laa topp. Mm-hmm. ndaxte ba ngay toog ci cinéma ba ci buntu cinéma ba di ñu way way ind foo jaar dañ ci ñëw. Mm-hmm. waaw loolu moom. démb la ndax sam papa sax pa ind lañ koy waa koñ ba. <laughs> Ah, ndax sunu sunu koñ ñoo fa njëkk am télé def ko cinéma. déggal loolu. may taxaw si buntu bi di encaissé fukk fukk. Mm-hmm. sama papa prince mu teg mitin prince ay dermen dara uh-huh. prince ay sësi kapoor prince ay sisan dara ñëpp lay teg macha pare damay seetaan film ñëw ni ko papa jàngal ma lii mm-hmm. mu a ma waxal aw sunangi piyaari ki ikivani ek talar ka ek talar ekvani तेरी सपने लडिल के तेरी सपना लनाटा कैल से दिल के प्यार की एक वानी न सोना न जानी बिको से मेरिया बोलो कि ने कानों की दिल आखे दिल बानों की asuketire am jeemare am jeexe dil baanu ki oho yaral sa doom ji bu baax dil yaaxe dil baanu ki bisni caabi ke diraamu xe bisni coocale ci roona Oke oke Asnan Diko Diko Diko Wurna macha allah. ah <laughs> man de maa nga moom daf maa topp Penda. war maa ngi indi topp de nii. billaay ba pare defoon naa fi. 2011 loo xam ni ñëpp boobu nag TikTok amul. Mhm. yooyu yëpp amul mais defoon naa fi benn woy boo xam ni ñëpp a ngi ko doon. déglu. Mhm. muy Cheikh Mouma. Mhm. man maa woyoon loolu. Euh, Mouma bu nekkoon téléphone yi. Mouma bi man maa woyoon loolu. maa woyoon maa woyoon tamit óole laa. Mhm. yàgg naa fi fenn bul nangu ku la yàkkal sa óole mm. laa. óole laa óole laa maa ko defoon téléphone yi. Ah, nee na man naa ko seet si. ma ni ko man du ma seeti góor. Mouma nee na bon taxu maa jóg. yàgg nañoo def ay ndaw la mais dañuy gëstu. dañuy gëstu loo xam ne tey dañuy jéem a indi suñu yëf bopp. dëgg la inspiration. nit bu nee ma waali deux sax wala diw dama naan ko bul ma ko waxaat. Mm-hmm. waaw <laughs> man un laa ndax. <laughs> boo doonee deux ba dajee un doo def. doo def mm-hmm. déedéet. Mm-hmm. loolu dafa jar a sóoraale si booy. waali deux. Euh, nu mu tuddee boppam Waly Seck et keneen ak keneen parce nekkul moom kese bari nañu. ay Waly ay Waly Thiès Waly Bambey ak yooyu yëpp. Euh, yaakaaroon ni ñoom war waroon nañu gëm seen bopp. Euh, comme ni nga ko waxee sànq nga nekk sa waali un bopp mm-hmm. nekk ay waali deux wala di tuddee sa bopp mm-hmm. keneen ak mm-hmm. loolu nag foo foo ko gis mooy mooy ñàkk mooy lu ma la wax rek gars yi dañuy bàyyi ba nga génne ñu déglu ko dem woyi ji ko waali waali deux yi si bu bu dee dañuy chargé si prise waali lan branché ndax waali bu génnewul ñoom duñ duñ ñoom duñ way léegi foo fekk deux un lay xaar mu def man fekkoon Youssou Ndour numéro deux la damay xaar Youssou Ndour lu mu woy rek ma dem woy ji Mm-hmm. léegi loolu noonu seen seen seen suwaa la mm-hmm. mais ku gëm sa bopp mm-hmm. da ngay def sa yëf bopp. dëgg la barki Seexul Xadiim man yàgg naa def ay ay morceaux yoo xam ni. booy yi way nii yëpp kenn du si nekk programme ba mu jeex. te woyoo man li ma moom. ñëpp booy nouvelle génération yëpp. ba pare ay ndaanaan jaar si man. comme man ni ma jaare si ay ndaanaan ay booy yu bëri jaar nañ si man awuma macha mhm. allah Bébé ci noonu la ñuy ñëwee tamit euh, ci sa parcours musical comme li ñuy wax nii ndax da nga am appui am nga ñu nekk sa ginnaaw ñoo xam mhm. dañ lay dooleel gis nañ ni que génn nga benn clip bu bees xam naa dinañ ci ñëw léegi tamit. Mhm. waaw affaire yi métti na lool. benn loxo laa kenn jàppale wu ma. benn loxo laa si si musique. kër tamit duma leen seetaan. samay waajur danoo am si man yaakaar. ba lu ñuy def bu nu woowee du du ma taaw mais bu nu woowee samay mag sax dina dinañ ma xaar ba ma ñëw ndax xam ne ne am naa yéene si ñoom mais musique ba ma si duggee ba léegi lu ma def sama xaalis la clip bu génnee sama xaalis la ba pare lu si gën a métti mooy da def sa single sonn si génn clip mm-hmm. dem si télé pour ñu teg ko nga mm-hmm. gis ñu naan la waaris yi ñoo xam ne dañuy jël sa numéro di la laaj pour nga dugale leen xaalis ah. dal na ma si ay yoon yoon ba sama clip mujj bi wax nii am ñoo xam ne ma naan dama lay woo ñu la waaye sa waaye gisaguma clip bi de nga ne ma waaw dugalal ma crédit dix mille wala crédit cinq mille gis nga ma doog pour sama clip sooga lii sama clip bi ba mu génnee daanaka yor naa cinquante mhm. mhm. na aar bi dafa metti waaw dafa metti sama affaire sama livre musical dama see daj ay coono yu bari ba léegi sax maa ngi ko si bu mag ba pare muy seeddi médecin yëpp yëg yëg kaatam dem bàyyi bàyyi ma kër may Fall. ma dox ba ma ma ba suñu kër. aw naa tamit artiste boo xam ne damaa ñëw. di way ni ngi dima may xaas mu ñëw mu ñëw dagg dagg dagg dagg son bi ni ma pareel donc bébé bébé laay euh, su ma comprendre bu baax mooy méchanceté bi ñuy wax dafa am ci wàllum aar dëgg la parce que euh, da ngay dem euh, di di di jàppale artistes yu bari mais waratul mhm. yow doo ci am dara non affaire yi du loolu man moom lenn laa ànd ak nit muy jigéen ak ku mu mënti àndal mhm. yow yaay dem ba dem sa yoon mais man du ma la war man noonu laa dundee. la ndax nitu kersa laa bu ma bu ma waxante yow benn affaire tant que defuma ko du am jàmm. Mhm. bu ma la lebee bu ma laa fay sax bu ma la gisee fii war faa génn lekk du ma du ma fa jënd lekk. Mhm. ndax dama naan kii dama ko war a fay. Mhm. mais ñu bëri nag ñi ngi ñi ngi defal ay artiste artiste di leen war. mais man man may ànd ak ay nit nga ne yaay sama ménageur. wala sama staff bokk ma lay defal nga war ma. dem si beneen artiste bu ñëwee damay ñëw soirée nit gis ñoo xam ne mm-hmm. si man la newoon maa tax ñu xam musique nekk si beneen waykat loolu day am ci doomu aadama mais dañuy ñëw léegi euh, Bébé ci sa clip bi waaw parce que tamit <laughs> clip bi mm-hmm. ah am na maanaa de am na solo de clip bi lan moo la ci inspiré ak tamit dafa am koo xamante ni peut-être moom nga ko liggéey euh, wala may ñu ci nag tuuti. ba ñoo ñëw ci na fi na fi jond lisan muy clip bu bees bi. Bébé Laye dañu aha ba clip bi dañ ciy ñëw mais dañuy wax régie rek ñu may ñu tuuti ci clip bi après ñu doon doogaa ñëw ci ci ci moom incha allah bu ko defee ñu ñuy commentaire ci mhm. Lisa oh, na fi jonn doon wax léegi dinañu ñëw ci euh, clip bi nga mm-hmm. wax ñu rek ndax clip bi dafa am koo xamante ni peut-être moom nga ko wel wala da nga inspiré wu rek euh, jël sa clip di jëkko ak. Euh, waaw clip bi borom morceau bi daanaka moom laa njëkk a fente si sama yëf bopp. Mm-hmm. am na yoo xam ne sax génnagul mais bii laa njëkk a fente. macha allah teg sama classement. ni bu ma defee bii. Mm-hmm. ba àgg fii ba ba toll ak ñii. Uh-huh. damay defaat bii bu ñu ba may tëkkalee kenn. ma soog a def na fi yónni lii sax muy clip bii. Uh-huh. mais nag affaire metti ma ne naa ko def benn yoon. dëgg ba pare na fi jong lisan daa nekkoon sama benn jigéen. Mm. sama xarit. Mm-hmm. macha yàlla na ko yàlla yërëm. Oh. sama xarit la woon. lii sax fekk ko fi te bu bu ma mësaa ñëw këram. Mm-hmm. comme di moom laa dama bu nuy kaf moom laa koy wayal. Mm-hmm. bu mës ba pare doon daan ma jàppale. Oh. nekkoon sama jigéen bu baax ñu bokkoon benn koñ bax daat moom laa woyaloon morso bi tur bi na xam naa moo neex. ndax sama jabar mi woon yow na fi jot ni lisaan loo seeg ak moom ma ne ko yow xanaa ku dem nag <laughs> ku dem ba gaañu ban kay ñaanal xanaa waroo maa laaj loo seeg ak ak li mu ci way lépp jabar jabar bu bu dëgër xol mooy a nekk ak yéen de parce ah. que parfois seen clip yi <laughs> mm. euh, li ciy xew dafay xaw doy waar trop maa ngi wax euh, ñi mm-hmm. doon woy avant ak léegi moom mm-hmm. dafa xaw doy waar parce que yéen seen euh, seen clip yi lépp moo ci am et donc moo tax seen jabar yi du loolu xam nga <laughs> tey jii. Uh-huh. jamono bi taxawul fa mu nekkul fa mu nekkoon. dëgg la. day gën avancé. ndax nettal naa la sànq ay jamono yàgg yoo xam ne TikTok amul. Uh-huh. man ba may fecc boobu ñaari télé fi nekk. RTS uh-huh. ak ak ñoo fi newoon. léegi tey jii bu fekkee da nga def clip bii def comme yëpp yoo ñoom Youssou Ndour defoon. wala yooyu ñoom kii defoon dan naan waa kii kan la. léegi il faut nga def li mais personnage ak personne du benn. tey jii clip bi. xas nga ba woy xale bu jigéen bi te ay mool na nga wax ak tooy na il foog que nga siy loolu waaw loolu rek la mais mm-hmm. tey jii la sama mag yi di def Wally Seck xanaa kon man bu ma ko defoon kon dem fekk bagage yi si buntu ba <laughs> dafa bëgguma lool de <laughs> waaw def clip yi am jom yi nga ji di def macha allah waaw waaw waaw euh, lan nga ñuy préparer li ma leen di préparer mooy tey ji sama bët fu ma ko teg mooy fu ñoom Wally Seck nekk mm-hmm. fa teg sama bët banlieue bu may tëkkalee kenn sax naan ma yàgg diw ak yàgg diw dama naa leen déedéet man sama bët dama kaa teg fu sori mhm. ndax aar ba ma ciy dugg caaxaan taxul tuxuma sàcc ma man woy rek laay def mhm. bu ma yeewu soo ba ngoon woy laay def bu ma woyul maa ngi sama nekk di seetaan ay football ak yeneen ndeysaan ak si milieu bi nga nekkee côté bi nga nekkee ak ak côté bi ma dëkkee musuma def lu ñàkk fayda musuma tux mhm. musuma def comme loo xam ne dañ ma bañ na ko ba koñ ba sax bu kenn naree jotee sax bu ma ñëwee dana laay laa si rus te xale bu ndaw laa ku ma gis tamit danga may fonk bu ma tukki woon dem benn dëkk day mel ni mhm. falaa juddoo falaa yaroo euh, mhm. maa ngi waaj nag lu doy waar décembre baa ngi ñëw maa ngi waaj lu doy loo xam ne <laughs> suñu mois bi waaw <laughs> sama ex sama ex daf maa bàyyi mais ah. am na li am na li ma koy waajal ah, ah baax na ex li sa ex bàyyi yëpp nan waaj ah. nga ni ma fa ko jaaral ndax mam bàyyi mi ex am da da koo bàyyi kon woyal ñu bëri incha allah hmm? man nii de euh, am na ñoo xamante ni ña ca régi ba de ñoom it ma hmm. daa mel maa ngi leen doon dégg ñoom it ñooñu noonu yëpp di leen toppaa seen ex <laughs> ah waaw yàlla baax na bébé laay euh, <laughs> euh, sànq yaa ngi wax ay artistes yu mag ñu ñu ngi lay woo lan mooy sa secret parce que gis nañu fii ay say moroom ñu ngi fii ba léegi mënuñu fexe ba avancé yow nag nga am hmm. opportunité opportunité non opportunité bu toll noonu donc ma bëggoon xam lan mooy sa secret en luy sama secret mooy li ma la wax tuxuma naanu ma way rek laay def. kon kuy def way kon tey ji am na ñoo xam ne tey bu la fréquenté man boo ma fekkee soirée sax wala ay jàkkaarloo doo xam ne mun naa way. Hmm. ndax waykat dañuy ñëw ak ñeneen ak tur yi ngay tudd diw ak diw penda <laughs> di tudd ay yeneen ak yeneen. mais boo mu fekkee sama biir kër ma toog. Mm-hmm. ba am kenn ku téye clavier wala guitare ma toog di wayantu. Ah. ndax waykat yoo xam dañ maa fréquenté wala ma fréquenté leen. ñu toog ma way. Mm-hmm. ñu dégg. ba pare am ñeneen ñoo xam ne danaa leen kii nangam ak nangam loolu la la la ñooñ di wax lan mhm. def seen xel moo tax ku ci def single da nga may woo dëgg la du ma awu du ma def dara mhm. mais da nga may woo ni ma fii de bëggoon naa fi nangam mhm. ko boo ko wooyee woo def def nii day day naay allah ci loolu sax la ñëw nag il faut que tamit nga jëng génneel ñu fenn de da ñuy génneel fenn de génn ci ci au zénith génn ci Penda ak Maimouna émission bi au zénith la tudd <laughs> jàmm la ni ñaan ñin waay buñ ko amee mooy lu gën ci sunu réew mi Sénégal njaay jàmm jara ñaan penda maa lay woo di la woyal Sëriñ Babacar Si Malick tey yéena ma woo ma ñëw oo oh, seeni fekk fi sama jigéen may mun naa sama waa ngi noonu su ma fàttalikoo sama yaram daw ma jooy su ma xalaati yaay xol bi fees ma jooy fi ma jaara fi ma weesu ak fi ma tollu tey yéena ma ci duniyaa yokku na ma jommi way sopp naa ràññe na bëgg naa li yay boy sama gàllaaj yay ñaanal ma ëllëgay sama yaakaar yal nay lu tey ma di la wayal kodde Adama Isa Iliman sira demba Ali Muxtaar waliyen waliyaa sama waaji Allah illah la ilaha Muhammad rasulillah Malick Thindo Aïssata Waliye Seynu dem na Maymuna ay sama waaji suma lay woy sama xol bi day neex penda warasi maa ngi leen di delloo njukkal Baay Faal yeeg yaay faal yi way naa leen jàmm lay lay la la jàmm wale Medina ba njaagaraam wali yen wali yàbbe taara πουλό jëmm sell ngaari lan toroodo madame Njaay bi nga laabal laa lay bëgga delloo njukkal jëmm ay waay liggéey nga xam daan doole sëri bay sekk ndaanaan sama ndaanaan la silva sama waaji waayoon naa la ma samba ma samba ma samba ma samba ma samba yaa bëgg balaay sa bureek sëriñ Mbàkke ak maaram taalibe sëriñ Tuubaa bi raki ma mor jaara nga doylu waa yow Abdourahman sama baay faal baa ngi noonu Abdourahman yow isa jey fatim penda la suka ngoon a jey nga doylu Abdourahman baay faal sisa sisa sisa sisa sisa sisa lay woo man waay man de bakk naa la yax rëy si penc mu mag la daan ba woo nday saanam sisa Seex Ibrahima maa ngi leen di delloo njukkal budul woon ak yéen dara du baax Seex Ibrahima bay faal yaa ngi noonu yaay faal yi bëgg leen jigéen ñaa ngi daan seen doole waaw waaw macha allah na solo vraiment <laughs> vraiment. waaw mi ngi noonu bu baax a baax a baax a baax. Ah. Euh, macha allah xoolal fu mu toll nii eh, yóbbu nañu feneen ndaxte. bilaay <laughs> bilaay gis nga euh, mën li ngay def. te di ko def dafa neex. donc euh, xam naa bu baax ni ka mhm. kan mooy bébé parce que yu bëree bëree bëri dañ fay daje. muy def nag yu am solo vraiment. Mhm. donc may mun a. Mhm. waaw ma bàyyi la rek bu fekkee am na yeneen question yoo ko yoo ko war a posé. waaw xam nga soxna Penda. rek taxul laay jóg xëy na am na yeneen activité yi nga xamante ne euh, mu ngi cee yëngu bëgg nañ xam yan activité waaw man nag ci woy rek laay yëngu waaw li gën a yokk tax comme gaa yi bàyyi ma xel lu ñuy def woo ma mooy woy rek laay yëngu sama samay rakk yi jigéen nag mm-hmm. fexe naa ba liggéey dara comme jox leen ñuy liggéey lu ñu bëgg macha allah sama soxna tamit nee naa ko lan nga bëgg boo bëggee tamit ma ubbil la cantine ma ubbil la ko ndax man tamit mooy lu kii naan taaba taaba ak dëbal dëbal wàccul borom kër ci laa nekk ci way rek laay yëngu yëngu ma leneen waaw euh, pour jeexal rek bébé la mhm. parce que yéen musiciens yi en tant que porteur de gis nañu li xew Maymuna sa micro mhm. li xew fan yi ci dëkk bi comme immigration clandestine bi gis nañ ay jeunes yu bëri ñu ngi ñu ngi ñu faatu ci géej gi est-ce que yaakaaroon ni war nañ toog fii ci dëkk bi tekki fii euh, teral seen waajur parce que koo ci dégg rek damay teral sama yaay ngay dégg mhm. waaw loolu moom man dama koy mettirlu mhm. ndax man képp ku ma xam boo mu wax boo boo boo mu bëggee ay waxu loolu sax dinaa la yedd ba tey ji nga toog mais ni ñëpp nag bokk ñu yem tey jii laay nu mu naan mm-hmm. lu jot yomb. Mm-hmm. am na ñoo xam ne xamuñu loolu. Mm-hmm. ñoom da naan tey dafa war am. ndax affaire yi ku ne sa wërsëg am. dëgg liir bu juddu tey sax génn àdduna suba wër wërsëgam jël na ko. muy la mu waroon nooy nooyu na ko. te man falaa laa teg man bu ma maa ngi leen di ñaax nag ñoom ñëpp. ndax suñuy sunuy mbokk lan suñuy lépp lan ndax loolu tey même boo amul mbokk da lay metti ndax Sénégal tamit góor ñaa ngi jeex de. Mm-hmm. Ah, góor ñaa ngi jeex. <laughs> man mm-hmm. parents damay romb jigéen ñi naan ma ay ñaareel ak takk maak <laughs> nangam ma leen noonoo <laughs> mm-hmm. ndax tey jii góor ñaa ngi wàññeeku. Ah, ah, daanaka li ñu amoon ci waxtu eh, booy seet jeex na eh, dama lay bàyyi rek eh, nga xool lan nga ñuy lan lay nga ñuy tàggatoowee ci émission au zénith waaye tamit ba tey. damay ñëw ci laaj la lan ngay li ngay waajal li waajal askan wi moom wax nga ko fi mm-hmm. léegi. waaw waaw loolu moom wax naa ko waaye duma ko woy ndax <laughs> dan maa yàgg dan maa yàgg njuuy moo tax. surprise la surprise laa koy def. Mm-hmm. waaw mm-hmm. mais maa ngi maa ngi gërëm ñëpp. ah rafetlu tamit si invitation bi ngi nice na ndax Penda moom sama jigéen la moom fu ma woo damay ñëw man nag moom nekkul tey kese rajo ak fépp ma ñëw fekk fi tamit may mun a mu baax loolu waa Rési. Mm-hmm. sànq ba léegi ba ma ñëwee ma naan est-ce que léegi dama ko ñett ñettalee ba ñëw sonn mm-hmm. dan maa ma naan <laughs> waaw nag di si noonu xam naa ne damay bàyyi may mënuna mu tàggatoo bu ko defee ñu daal di bàyyi bébé laay daal di daal di ñuy a mm-hmm. fii euh, neexal émission bi noonu lool lool di ko ñaanal yàlla yàlla na baat bi di remercier téléspectateurs yi toogoon ci seen kanam écran di ñu seetaan di leen jox dig daje ba mercredi prochain incha allah. incha allah kon euh, man tamit foofu laay tàggatoowee rek macha allah di wax ni euh, suñu euh, téléspectateur en fleur yi nga xamante ne nii vraiment ñu ñuy topp ci Evidence TV seen émission bi nga xamante ni moom moo di Au Zénith gis nga tey jii ñu am nga xamante ni moom moo di bébé laay macha allah mu neexal plateau bi tubaab fakala macha allah noonu laay nuyoo ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy ñi fi faral di toog ku ci mel ni may a ku ci mel ni tamit nen ne ànd ak jàmm moom it ñëwaat ci suñu émission waaye itam noonu laay béggee ki nga xamante ni moom moo di Black ah sama frère sama xarit boobu noonu ñoom mhm. Jokash ah ñoom Ibrahima mhm. ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax samay frère yu am maanaa lañu macha allah yu ma sopp lool euh, ku ci nekk rek nee naa la euh, sa émission ngi noonu mhm. muy nit ci Evidence TV bu leen fàtte nag na ngeen abonné ci Evidence ngeen bës cloche bi su ko defee émission bu ñëw rek di ngeen ci jot xam moom moo di Bébé Laye sama frère vraiment kontaan ci yow bu baax a baax wax dëgg yàlla temps bi gàtt na mais noo mënti def rek ñëw nga nga toog àndandoo ñu ci émission bi ñu bàyyi la rek nga gugee ñu macha allah. ajëf bëgg naa yéen yéen moom toog ak yéen daf may neex maa ngi gërëm ñëpp nag di ñaan sama papa ak sama yaay ñu gudd fan. Mhm. dedem waaye man de dama amul danga di xale moo tax muy sa xalaat bëgg naa waaye man de dama yorul yorul séri ko ko wax mënoo ko yégee bu njëkkoon dangay mot ñu may la jabar léegi soo ko amul demal tëddi yow bëgg naa bëgg naa séri ko ko lii de doy na kii maa Penda man de kontaan naa Maymuna kontaan naa waay aa ah, maa ngi lay ñaanal yow bu sa kan mu alaaji Fallu Mbakke lay woo buso ba way jaaxle ba jaaxle dafa ni ma laay kay woon xale yoon ndax xale yi xamee tunu fun koy teg ndeke may mbaar mbëpp ak bëfër te man damay woy si dóore mi fa laa sol ak si damay ey ey ey waaw waaw kontaan naa kontaan naa sama xol sedd na